dañ may faral di laaj saa bu ñu xamee ne man ak sama borom kër ñooy liggéey nan la ñuy def ba liggéey ba pare tamit liggéey boobu bañ a nekk loo xamante ne dinañu andil problème euh, ci suñu wàllu kër donc tey euh, ci VSD bi liñ lañ andil mooy benn interview boo xamante ni dinañ mun a dellu si wàcc si lu bëri loo xamante ne dañ ma koy faral di laaj si euh, sama liggéey bi may liggéey ak sama borom kër salaamaaleykum maa ngi leen di dalal ak jàmm ci suñu épisode bi la dalal. Salam alaikum, yow Aziz Agbopanzo chef et euh, promoteur culinaire. li may njëkk a laaj mooy nan ngay def ba nga xamante ne li ngay dund sa biir kër du nekk loo xamante ne dina ñëw andi problème ci sa wàllu liggéey wala loo xamante ne xew na ci liggéey bi du ñëw tamit andi loo xamante ne euh, ci seen kër mun na andi leneen nan ngay def ba ñaar yooyu nga tàqale ko bu baax. ah lu gën a important mooy lu ñu mun déggoo déjà ci lu ñu war a toppatoo ci suñu ci suñu kër ak séparation ak liggéey bi mm-hmm. euh, bu ñu mënee waxtaan. ci jàmm euh, régler lu mënta doon lañ lu ñuy lu ñuy daj ci kër gi ñu toppatoo ko xale yi kër gi lu ñuy jënd euh, togg yi ak yooyu yëpp léegi nag séparer liggéey bi jëkk beneen côté léegi waxtaanu liggéey du waxtaanu kër et vice versa kon su ma déggee li nga wax bu baax mooy effectivement euh, dañuy am ay moment yoo xamante ne bu ñu xësee ba dugg ci bërëbu liggéeyukaay bi liggéey rek la gën a wax foofu ak yeneen moment boo xamante ne tamit liggéey day arrêté yenn saa yi du yomb parce que mën nga nekk ci leneen am xel loo xamante ne dina ñëw sa xel waaye foofu li gën a am solo su ma déggee li nga wax bu baax te li nga xamante ne moom la ñuy jëf tamit mooy euh, jël euh, espace su liggéey bi mu nekk espace su liggéey ak espace su kër gi mu nekk espace su kër gi beneen bi ñu dolli tamit mooy euh, dëkkuloo Sénégal donc euh, li ñuy wax faral di wax relation à distance yaa ngi bitim réew da ngay dem di ñëw mu nekk loo xamante ne tamit mën na indi lu gën a jafe ci dund déjà li ngay dund ci sa kër mun a nekk tamit lu gën a jafe ci li ñuy dund ci suñu bërëbu liggéeyukaay loolu tamit yan conseil ngay joxe foofu si ñi nga xamante ne dañuy dem di ñëw fekk seen soxna mu ngi fii dëkk Sénégal par exemple. am na ay avantages yu bëri parce que dañuy namante

Euh, c'est un plaisir tamit euh, lay am di à chaque fois tamit di la avec ak di gis yi donc c'est un avantage et ses inconvénients mais tàmm nañ ko collègue euh, alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ci loolu.

effectivement am na ay inconvénients waye man fi ma nek ni li nga xamantene ne teg naa ko mooy projet bo xamantene day tax ba da ngay obligé <laughs> tok fi au moins ay juróom benni weer ak yooyu ndax projet bu rëy rëy rëy lay don doon euh, ndaxte bien sûr nga nek fi moom a gënal nga nek fële donc est-ce que mën nga ñu wax ci projet bi nga xamantene ne andi na la fi té euh, dina tax nga tok fi du yag yag yag amna ah, ñaari projet mais benn bi mu ngi tudd Dakar Restaurant Week. Euh, février lay donne. instant yi maa ngi ci préparation waxtaan ak euh, différents restaurants yu nekk Dakar euh, maa ngi ñaan yàlla ñu génn Dakar sax bu ci kanamee ñu dem Saint-Louis Ziguinchor mu nekk Sénégal yëpp mais instant bi projet bi moo jël sama temps moo tax ma teel a ñëw parce que février lay donne, donc du léegi inshallah. mais préparation bi tax na ma yàgg fi léegi beneen projet bi mooy. Euh, projet télé de faire benn show télé bu may préparé donc ñaari projet yi moom defe naa dinañ tax ma ma yàgg fi euh, ma ngi ñaan bu fekkee ne am na ñuy ñu am restaurant euh, ñu bëgg participer ci projet bi mën nañ pour mu jox la na information pour inshallah allah ñu bokk si. donc loolu tamit bu nekk mun na am astuce bi may mujj joxe euh, waxoon nañ ko ci version francais bi tamit mooy da ngay xam kii nga xamante ne moom ngay liggéeyal comme xam naa ne da nga fonk planification moo tax il fallait ñu andi projet boo xamante ne dafay andi planification bu gudd gudd euh, pour lépp li nga xamante ne yaa ngi koy organiser nga mun ko organiser bu baax a baax kon boog euh, mbokk yi j'espère que li nga xamante ne jot nañ ci wax am na ñoo xamante ne dina leen dimbali bu baax Euh, bon, parlez pareil, ma leen di jox pour prochain épisode VSD de Mina Pro merci. merci jërë